la solution mi ngi en face wal fajri di yënguti ci wàllum plante am nañu ndoxum siti bàcc ma sambaam Cheikh Baara Ndiaye it bëgg mbirum sëy lool moo si Baye Mbaye ñoom it euh, ñu ngi leen di nuyu ndoxum siti mu lay faj ba nga wér si kàttanu yàlla am na fi am na hémorroïde hémorroïde bu lay faj ba nga wér si kàttanu yàlla si biir ak si biti estomac estomac songe bu baax boo xamante ni soo ko jëlee lu la neex mën ngaa lekk bul bàyyi dara dara dara lu mu mën di doon lekk mën ngaa lekk lu mën a doon mën ngaa naan mën ngay tegale xaaral ji noonu la dem kenn waxu la lool estomac bu la dara musta dal sax waxuñu la ngay fallax fallaxi di lekk lu la neex ak ba nit ñi bàyyi nit ñi essayé kenn essayé loowu la waaw diglu rek waaw kenn waxu la ne la nga nekk dox di essayé lu da ngay faju kañ faju nga ba pare léegi mi ngi mel ni eh, nga faj ba noppi naan jéem a la xoolaat ndax jàngoro ji kii la bu la yàlla dafay kay faju nga kay mel ni ñu opéré la ba pare nga naan xottiwaatal ma xool yow tey ku ah. damm a wadd ba xam wér nga ba yow da def loolu. <laughs> mais ici. yow lan moo tax ba seen digle raxee ba ma nga ne ma dawalal. boo wéree ah? <laughs> ba fi digle raxee. waaw ñuy dem Touba ma ne ko Assane mun ma déet dawalu ma sama digg lii. <laughs> waaw maa toog dawalal. lu tax yow dawaloo ànd ak sëkku si. Ah, lu tax ne fi. Ah, eh, munoon nga ko essayer. toog jub. waaw munoon kon am nañu li nga xam ne moom mooy euh, um, estomac am nañu asma. Hmm, asma it nee naa leen képp koo xamante ni amee nga ko jëlal. traitement bi tàmbali ko bu la neexee bul teggeeti cuuraay na néeg bi lëndëm hmm. kër yii sépp fa seex gis saxaar rek wërul saxaar rek si dugg jàll si jàmm ak salaam ndax estam traitement bi nga xamee ne yaa ngi koy traitement sa asma am nañu ballottement ballottement it bul teggi dara moom it mën ngaa lekk sa cere mën ngaa lekk sa blaax mën ngaa lekk sa damada mën ngaa lekk sa suppu kànja bu la neexee nga boole si ndambe ndambe ji sax moom bul bul isité lekkal ba sa biir ni dadd si kàttanu sunu borom du du la def lenn lenn ndax ballottement bi nga xam ne yaa ngi koy traité moom Ndambe. <laughs> Ndambe Ndambe ñebbe balapement bi da koy fekk foofu. am nañ tànk yi xar yóbbu. tànk yi xar. tànk yi xar wala ay góom yu la sonal ñëwal nga jël si ko nga defee ko ni ñu la ko waxee si kàttanu sunu borom da nga tàggoog ñaar yëpp. d'accord. gis nañ ca wal fajiri ab journaliste bu ñu yaram wa day metti ba Pape Makhtar ni ko demal nga seeti waa solution muy Moustapha Diop nee na yaram wa yëpp ay metti kon bu ko neexee mën naa jël si raay mu sedd Moustapha Diop lu mu gaaw léegi doyul bu ñëwee ñu jox ko raay mu sedd mu àgg soxna su mu aayee bu soobee yàlla mu bërëm ko ci si kàttanu sunu borom bu ñëwaatee fii bërëm yaa ngi Moustapha ba ci bërëm ah lan mooy bërëm man bërënguma ko soxna yi moo koy bërëng ñaari soxna yi ku si aaye laa wax. bërëng ko yow ko daa bëri yaram yi gën a métti bërëng alaaj kii bërëng la wax de bërëng xam nga naan ko di ko kii bërëng. ah yow Moustapha Diop ngay wax. non da koy tëree si napp bi di kii ko faroote bërëng. yow dañuy bërëng. Ah. <laughs> non waxuma man. Moustapha alal de ni muy forote woo rek lay wax <laughs> xam naa dañ koy forote di ko bërëg asak yow dañ lay bërëg ba li di metti xam naa dañ ko doon bërëg parce que boobu mun toona tourné yaa ngi fàttaliku ba ñuy doog a def boutique solution raay mu sedd bi njëkkoo daam te ñu diwoon saa yi ba mu weex ba mu mel ni maçon vidéo ba maa ngi moom waaw boobu de <laughs> démb laay xool ba yàgg ma dajeeg moom daal boobu boobu weex gi doo nga jëlee mais macha allah dafay évidence. <laughs> ba mu yàq mais nag da comme ci mburu mbaam bu génn waaye. pourtant na ñoo xamante ne bii dañuy wax ne xam nga am na ko ñu ko jëndoon bu njëkk ba. Mhm. ñooñu dañuy wax bu ñu waxee bu ñuy jënd si bii sax duñu wóolu quoi. Mhm. bu njëkk ba bu weex ba ba ngay weex. waaw parce que ba ngay weex. xam dañ ko yoon woon gis euh, kii bi quoi mais nag bon bii. comme ah, dafa ànd ak yeneen mënu sa dara looloo tax. waa bii raay mu sedd la acca euh, ñu dem ci nga xam ne mooy góor gu néew kàttan Assane. Assane <laughs> góor gu néew kàttan Assane. ah góor gi néew kàttan. bàcc mu leer nañ. lan mooy bàcc mu leer nañ. waaw mooy néew kàttan am na fii. <laughs> karaw gi dagg di ruus. waaw ah, loolu moom dakk na ak bitigu solution. li nga xam ne moom mooy euh, solution plus. solution Précide am na fii si bitigu solution ñoo leen ngeen jël si ko jigéen ñi nga xamante ni seen biir day metti bu ñuy gis mbaax wala boog góor ñi nga xamante ni seen biir day metti te biir bi metti moom xam ngeen ni moom baaxut euh, bu ngeen ñëwee si kàttanu sunu borom man ngaa tàggoog moom. Mhm. numéro téléphone yaa ngi noonu ku bëgg a ko boutique la solution ñoo ngi fi 9h euh, ba 16h30. Euh, Abdou mhm. Top comme la ma la waxoon rek tabarkal tabarkal kon numéro yaa ngi noonu.